bàyyi nga ah gis naa fi nit ñu bëri yëkkatiwuma leen. yow sama gars man daal man daal moom moom moom ah. damay fay dafa so fay ndox mi euh, courant laay fay ci wari bi. man maa ngi dégg keroog sama doom ji mu ko doon wax si Omar li mu ma ko doon wax nee na ma xaw ma ay orange mooy da ngay ñëw fay. Hmm. man man tubaab bi ñu wax garaaw xale yi. man man ñaata la. man xaw ma si dara de. ay waay ah xaw ma si dara de. Ah, nañ ko àgg peut-être moom du weesu. waaw tamit mu dimbalal waaw sonal nga ma de. barkaati démb laa fay man seen rek laa xam. fa laay dem toog orange sama waay nga benn xale sax moo nekkoon un milliard mais moom da daf ma may. Ah. daf ma may. ah position daf ma may waaw. yow daa xatoon daa xatoon daa xatoon moom un milliard la to la la tollu ah, ah, ma ne ko yàlla mu xar rek. sallaaw kay xale yi na ngeen def na ngeen def waay. sëñ pen lañ may wax. waaw waaw waaw waaw li ngay wax. Ah. <laughs> moo ta ku ma si yow nag. noo sant. Diop Diop juba. Mhm. waaw man lii la lii xam nga tooroo do waaw. Mhm. waaw sàllaaw kañ. Ah. moom kay ma leen gisee laa xam ne. Ah. Mhm. moom moom ay xale yi am jom ngeen moom. sëñ lii. waaw a woor. woor wooroon nañ si suba de. si suba waaw. ci suba. kon yéen da a war a ñëw ba yéen feneen. dangay wax rek. yendu yendu. waaw. ñoom a ngi salaaw. ñoom dem fu mu demee ku bëgg fu mu fanaan mhm. ak ku bëgg ko ko wétali. Ah. doom tëjal buntu bi du leen boole. ah loolu la. wuy ma ñun yéen nañu wër. daam nu may def ak yow. salaaw. Mhm. mu na ko olof daf ne lu mu wax. Ah. Mhm. bu demul ci allé bay kare rek dem ci diwee firaaw na. kuy door a mën kuy saaga man déggoo ma de <laughs> man sama lépp a gaaw. wuy ma Allah. def dara jëf anti nag dara salaamatan daayimatan di nga wàll yow yaa gaaw. laa koy yëgee lu mel nii. lii la la. mu mu mu lan.